coupe bi nag euh, ñoom ñëpp ngi fi euh, avec le capitaine courage euh, Kalidou Koulibaly dinañ daal aussi un peu sur la prestation des Lions entre autres mais peut-être mën nañu dem avec quelques réactions déjà juste après le match avec Aliou Cissé le coach Aliou Cissé bi ñu doon wax sànq ni am nañu ci ay ay éléments avec la complicité la régie ci liggéeyu Papa Ntamboub également juste à côté avec l'ensemble du desk sport ñu teewluwaat Aliou Cissé après ñu daal di suwaat merci beaucoup merci beaucoup vraiment ce fut long ce fut difficile par moments compliqué mais on n'a jamais abandonné euh, ce fut un match difficile aussi on a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là On a eu ce penalty qu'on a, qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les, les, concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Je crois que ça prouve vraiment le mental de cette, de cette génération. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette, cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière ces premières étoiles. Aujourd'hui, dans notre, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Mais voilà. Et remercier mon staff. J'ai voulu venir avec eux. Régis, bien sûr. Euh, Teddy, Tony, cher, il est là. L'intendance. Vraiment tous les gens qui sont collés à cette équipe nationale qui travaille d'arrache-pied depuis pratiquement sept ans. vraiment les féliciter. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot. Voilà. voilà voilà euh, kon euh, c'est le Sénégal qui gagne amul euh, Euh, ñoo bokk lépp euh, on a vu euh, tout de suite euh, muy Sen TV muy toutes les chaînes de télévision nationale parce que quand même dañuy fàttali ni RTS bi nga xam ne moom mooy la chaîne nationale di def liggéey bu am solo ci wàllu woowu mais teewul les chaînes privées ils ont fait ce qu'on appelle euh, dans euh, euh, l'information également ci lu jëm ci loolu euh, presque quatre-vingts journalistes sénégalais yoo xam ne dañ leen accrédité ñu dem muy photographie muy ay caméraman muy également ay reporters suñu équipe gis nañ fa liggéey bi nga xam ne def nañ ko fa ah ñoom Soxna Fall Pape Moussa Sadio Abibou ah, Ka service public lañ nekk ah c'est-à-dire que on est dans le privé comme on le dit mais li ñuy joxe ni service public la bokk moom et ce qu'il faisait c'était tellement euh, intéressant sunu sunu plateau yi man peut-être Sen TV la lu ma doon seetaan mhm. mais par boo jëlee président Lamine Gueye mu doon def benn zoom kan euh, une heure avant match bi mu décortiquer le match bi nga xam ne moom moo passé mais également ku si nekk joxe xalaatam mooy ñi ngi experts yi nga xam ne ñoom ñoom doon bokkal plateau euh, wax la équipe bi ñu war a dajal lan mooy point fort am point faible yi xam nga sunu équipe nan la ñu war a taxawee mais loolu de yow mii day tax nga gën a mën a imprégné wu ci li nga xam ne moom mooy match bi bay bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko envie bi nga xam ne ñun ñëpp amoon nañ ko pour jël euh, cap bi euh, coupe bi gën a nekk si ñun donc liggéey bu am solo lañ doon def foofu noonu euh, ci ci ci CAN bi oui je crois que c'était très attendu de toutes les façons Euh, parce que aussi euh, au de la de la RTS comme l'a di Birahim bokkoon na ci également télé yi parce que ku ci nekk peut-être bëgg nga fi nga bëgg seetaan fi nga bëgg di xam fan la yëf yi di xoyam xoyamee. Hmm. alors euh, Sen TV on va dire joué na ci partition bu am solo Lamine Gueye qui a été à la manœuvre Euh, mun nañ ko waxee noonu avec Zoom Kan euh, on a eu euh, Alune Seck je le disais tout mm-hmm. ah, ak ñeneen ñoo xam te ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum football ñoo xam te ne nii toj nañu footballu Sénégal on va le dire kii nga xam ne tam mooy Siré Dia moom moo fa mujj Siré Dia ñëpp xam ko nekkoon jaraaf nekkoon aussi attaquant yi nga xam ne moom nañ gën a ràññee donc c'est pour dire que on a mobilisé tout le monde ñi nga xam te ne nii xam nañ seen xam-xam màcc na ci wàllum football et je crois loolu am Aliou avait euh, compris décrypter le message parce que aussi c'est critique ay critique la yu constructive et je crois ba ko jëlee euh, avec euh, beaucoup de philosophie ak aussi modestement jàpp il fallait se réajuster et on a vu ba mu réajuster automatiquement on a vu un autre visage du Sénégal c'est vrai qu'au départ on a été un peu un peu nan la mën a hésitant on a été amorphe à la limite mais oui pour les secondes phases quand même on a vu une belle image du Sénégal et je crois que loolu tey jii nii moom moo moom moo moom moo fay beneen lecture bi mooy li am solo on a vu que euh, ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekkoon ci épopée 2002 ñoom ñëpp dañoo booloo ñëw replier gunge seen i rakk te loolu dafa am solo parce que aussi lu benn mën foog naa ñaar ko ko dàq te xale yooyu bu ñu gisee ñi nga xam ne ay référence nañu woon ci ñoom 2002 ñu ci bëri ñoom euh, Nampalys Mendy xale la woon Sadio Mané xale la woon hmm. euh, nga jël Pape Gueye la woon ñoo xam ne ay âge 22 23 ans nañ am ñoom Saliou Ciss ainsi de suite donc bu ñu gisee euh, quelqu'un comme Khalidou Fadiga quelqu'un comme Alassane Ndour Lamine Diatta donc Cheikh Seck également loolu dafa am solo et je crois que ça a payé apport foofu c'était considérable et au finish les jeunes ont compris qu'il fallait décrocher ce sacre continental et, c'est fait bravo mais sant yàlla ah euh, Tafa le philosophe euh, yaakaar naa ni lenn gënu a neex mooy ñëpp bokkandoo xàccandoo dóorandoo te jàpp naa ni ren ji loolu la ñu gis sénégalais yëpp bokkandoo xàccandoo dóorandoo euh, ba li ñuy wax mànkoo wuti ndam li ñu mànkoo wuti ndam li indi ndam li. Ah. donc soo gisee équipe bi ni ñu ko préparé ak ñi nekk ci ginnaaw équipe bi muy euh, génération 2002 ak euh, ñi nga xam ne ay experts la ñu nekk fii Sénégal seen xam-xam màcc trop ci football ñoom ñëpp dem nañ gunge equipe bi. tey jii Sénégal bu réussir ñëpp la réussiral parce que ñu ñëpp ay sénégalais lañu man nag final bi benn aspect rek moom ma ci gën a neex. Hmm. xam nga dañuy wax naan final kenn du ko joué dañ koy gagné. Sénégal démb dafa joué dafa gagné. dafa hmm. gagné parfaitement. voilà xam nga final kenn du ko joué dañ koy gagné mooy que. il faut que ngay préserver équilibre bu baax c'est-à-dire ngay sóoraale bu baax. Hmm. aussi am na yenn risques yoo xam doo ko jël. mais démb dañuy gis Sénégal di jouer zone de préparation zone de construction ak zone de finition avec beaucoup de sérénité nag ñeme li ñuy def oser. moo lay wan ni équipe bi. màgg na ci biir compétition bi. xam nga euh, un sélectionneur équipe nationale A bu defee dara bul ne lim def baaxul. da nga naan ko yokk ci lii. parce que moom mooy sélectionneur équipe nationale A te depuis bi mu ñëwee ba léegi mi ngi mi ngi wane boppam mi ngi def ay résultat critique nag mënul ñàkk mais critique bu positif. baax na trop mu koy dégg parce que loolu mooy tax mu xam ni nit ñi kat ñi ngi suivre équipe bi aussi am nañ ci ay jàngat am nañ ci luñ ci war a wax luñ ci war a sànni donc Sénégal mën naa ni euh, démb joué na final bi avec manière joué avec possession gagné soo xoolee mooy li ma waxoon fii keroog rek lundi bi passé bi ma fi jugee Sénégal yëpp dañ doon wax problème mu Sénégal amul jeu amul jeu. Hmm. pourtant démb ñoo dominer possession des balles am nañ 66 pour cent. tout mais Sénégal dugalul bi possession day am objectif. Hmm. day def possession pour attaquer wala ngay def possession pour défendre wala ngay def possession pour noppalu hmm. boo xoolee démb Sénégal liñ doon joué. baax na trop mais li tax bii bi ñëwul mooy organisation offensive bi moo xawoon des parce que Famara jeeju fi mu doon décroché di ñëw ba ci militaire bi dafa mm. xawoon sori te buy décroché doo o bi lay def te bu defee doo o bi Sadio Mané moo war a dem axial mm. parce que l'organisation offensive est caractérisée par des comportements mm. qui l'équipe assume quand elle a la possession du ballon afin de préparer et de créer des situations offensives il est nécessaire d'être en capacité de créer déséquilibre total ou déséquilibre partiel loolu mooy tax nga mën a créer déséquilibre bu gaaw parce que démb boo xoolee euh, défence su Égypte bi recul frein collectif lañ doon joué parce que démb seen défense dafa manqué parce que boo xoolee seen arrière droite bi démb jéewul moom mooy euh, comment dirais-je moom mooy euh, mooy seen arrière droite bi damay fàtte turam Kamal. Mhm. démb jéewul waaw parce que démb moo tax seen défense bi estable trop moo tax démb ñu leen see recul frein collectif boobu parce que recul frein collectif mooy comportement défensif d'un groupe de joueurs visant à ralentir l'attaquant adverse voire de orienter en reculant pour permettre le retour des partenaires dans le bloc défensif moo tax démb euh, entraîneur Égypte bi étudié na Sénégal xam nañ ni ñun dañu ay flèches moo tax mayul woon Sénégal muy dugg en 20 mètres en 30 mètres ci axe bi dañuy def loolu a remarqué démb ci match loolu rek mooy euh, vraiment le le. c'est le philosophe qui parle mais c'est également un connaisseur du football oui. alors euh, mën nañoo xam nag football ba gën koo xam ña ko doon def muy footballkat yi ñoom ñi jël li di ndam ni euh, justement ak euh, Mame Sidi waa Régie yëpp dañuy dellu si justement sur ces lions du Sénégal